ziyaara leen danoo am gan de ànd ak Xadi am gan ànd ak Soyibu moom Pape waay waaye jóg waay jóg leen waay jóg leen waay jóg ndax dafa am solo yaakaar naa ndaw moom dafa war a wut wéeruwaay bu fekkee day bañ a daanu ba tax na dañoo bëggoon ñu jox euh, ku mel ne alaaji mu nekk moom it kilifa ci garage bi mu ubbi ak ñaan bu ubbee ak ñaan ñu doog a dugg ci waxtaan bi waaye nag waxtaan bi ak situation bi fi mu toll nii ak asamaan si lu mu gën a gàtt rek gën a baax alaaji tàmm lépp lu ñuy def rek ñu ubbee ko ñaan waaw kon bu ko defee ndigal li ñu ko nit ñu ko sant rek ñu jafe ko noonu kon ñu def fatiha euh, ak euh, salaatul fatiha fàllaxi ak naas ñu ñaan jotaay bi jàmm njëkk ci te mujj ci te lépp luñ fi wax rek yàlla nësal ñu ba mu dugg ci biir xol yi ba ñi ko war a dégg dégg ko ni ñu ko war a jëfee ñu jëfee ko noonu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa gaaru Thiers bi di bég lool ci dalal bi ngeen ñu dalal tey seen liggéeyukaay euh, di leen gërëm ci dalal bi ngeen ñu dalal ci seen liggéeyukaay lu ci ëpp ci yéen wàcc nañ te fu sori lañuy ñibbi waaye tool bi ngeen nekk ak tool bi ñu nekk benn la te ñun ñëpp suñu yittee mooy bu ngoon jotee ba ñuy dellu suñu kër ñu yëg ne amal nañ njëriñ bu weesoo suñu bopp suñu askan te yéen xam nañ ne lu muy gudd lu muy gàtt du seen bopp rek moo tax ngeen di xëy si fii lu bari moo wekku ci yéen xam nañ tamit risques yi ngeen di jël ngir taxawu askan wi xam nañ tam ci condition yi ngeen di taxawoo askan wi ci jafe-jafe yi nga xamante lu ñu xam la lu ñu miin la euh, fi ñu daan waxtaanee ajjuma bu jot ci télé bi li ñu fa indi débat ci secteur transport kenn xamul nu mu toll waaye dama daan faral di wax ne bala ñu koy def rek lu bari dee ci kaw tali bi wala ñu dégg njombe bu rëy ñu waxtaanee ko après jàll ci leneen waaye duñu xool nan la ñuy def ba saafara ko muy taf yëngal boo xamante ni jàpp nañ ne mënatul dañ aussi bien sur le plan administratif aussi bien ci outil de travail bi nga xamante ni moom ngeen yore outil de travail mooy le renouvellement du parc beneen bi mooy la formation ci ñi nga xamante ni tey ba ci ñi doon def mécanique xeetu oto yi nga xamante ni moom la Sénégal di am léegi comme amaguñu ay usines yu koy defar auto yi technologie bi amaguñ ko te lu ñu war a am la mën nañoo am tey ay oto made in Sénégal li may wax nii du waxi politicien du waxu politique lu mën a nekk la ndax am na yeneen réew yoo xam def nañ ko réew yi nga xamante ni nag ñoo gën a bu leen ci kenn nax réew yi gën a jekku renouveler seen parc automobile du réew yi nga xam oto yëpp dañ koy importer mooy réew yi nga xamante ni dañoo weesu sax usine de montage mais dañoo usine de production parce que bu ñuy produire di fa monter non seulement dinañuy créer emploi mais dafay créer ay conditions pour ñu am formation sur les métiers de l'automobile ba nga xamante ni dañuy weesu fii nga xamante ni fii la débat bi nekk leneen li mooy le cadre de travail xam ngeen fii wax dëgg yàlla fii ñu leen fekk ngeen di liggéey nii demoo ci benn réew ci àdduna bi réew bu am solo dëgg réew bu ay ña ko jiite jàmbaare nga fekk ñiy liggéey liggéey bu am solo secteur bi gën a stratégique daanaka moom lañ leen dénk service public du transport da ngeen am une délégation de service public service public du transport mooy qualité de service waaye pour nga am qualité de service bi dafa am tout un accompagnement gunge bu am solo boo xamante ni war nañ ko def ci ki nga xamante ni dafay jóg ñu war a egg nañ war nañoo egg sax ci ñi ngeen di accueillir parce que tey formation bi ngeen def bu métti la parce que dañuy jël koo xamante ni ay waajuram mënatuñ ci moom dara ñu indi leen ko ci seen atelier yi dénk leen ko lu ne ngeen daj ko ci mu nekk risque mu nekk risque risque boo xamante ni moom ngay yenduwaale moom ngay gontuwaale ndax ay waajuram mënatuñ ci dara école bi ñu ko yóbbu woon dàqee nañ ko fa mënatuñ ci dara ñu jël ko dénk leen ko loolu moo tax gunge bi mënu ci ñàkk du point de vue de la formation professionnelle du point de vue de l'insertion ba nga xamante ni ay ministères yu bari du yéen liy régler le transport c'est pas une question du ministère du transport ay ministères yu bëri ñoom ñoo war a lëkkaloo ngir régler ko donc un conseil interministériel sur le secteur du transport mu nekk un véritable secteur où les acteurs du secteur mën a toog autour d'une table waxtaane ko pour mën ci jóge leneen li tamit dafa am ñoo xamante ni aussi xëy na dañuy dunde secteur bi dundaluñ ko parce que yàqu bi secteur bi yàqu xëy na moom moo leen gënal moo tax nanguwuñ mu jag tey ji boo demee ci secteur de la santé yàqu bi mu yàqu am na ñoo xam moo leen gënal boo demee ci secteur de l'éducation yàqu bi mu yàqu am na ñoo xam moo leen gënal boo ñëwee ci secteur du transport aussi am na ci ñoo xam dañ koo bëgg di dunde nii mu mel te ko dundal donc ñun ñëpp ñoo war a dajaloo waxtaane ko waxante dëgg ja jël li nga xamante ni moom la mën a saafara daal di koy ànd dox dox boo xamante ni at mu jot dina am loo xam dinañ ko ci régler définitivement ba nga ni li ci kanam dinañ ci mën a rafet njot leneen li nga xamante ni moom moo am solo mooy lan moo ñu yëkkati lu ñu yëkkati mooy ni ngeen ñu xamee jamono bu ci nekk secteur bi nee naa secteur bu ma miin la ndax secteur bu ma waxtaanee la ay at ma koy waxtaanee yéen xam ngeen ci dara saa bu ngeen yónniwaan kenn fa ma daan ne mën naa compter ci man pour ku ko dimbali pour mu wax li nga xamante ni moom la moo nekk ci moom moo nekk secteur bi ñu gisoon ci beneen jafe-jafe tamit mooy kan moo leen war a waxal kan ngeen war a yónni mu waxal leen ak kan ngeen di yónni ba bu demee du leen fàtte loolu moo tax fonk gu ñu fonk artisan yi mooy tey ci sunu liste ñun la coalition les serviteurs MPR ci ngeen di fekk les l' association des artisans et alliés du Sénégal tey jii ñun ñoo leen jël investir leen def leen ci suñu liste suñu list national ak sunu liste départementale au niveau de Kaolack nous sommes avec les artisans parce que dañoo gis ne dañoo gis ne ñoom booba ba tey dañ doon yónnee te ñiñ daan yónni daaw ñu leen taxawal ni ñu leen war a taxawee donc loolu moo tax nag ñun ñu jël sunu responsabilité ñëw ci campagne bi ak li muy xat yëpp ànd ci ak xadijatu ak ñi nga xam ñoom la àndal yëpp au niveau de Mbao mu fonk leen trop mu daal ñu daal di ñëw ne li ci jiitu mooy dem déglu leen ndax loo xam sàmba sàmba gën la xam boppam suñ leen dégloo ba pare am na luñ ci xam waaye suñ ñëwee daje ak yéen ngeen wax ñu ko ñu génne ko ci média yi bu saafarawoo fi ak élection yi alhamdulilah su saafarawul bés bu ñu demee assemblée nationale ci xeex yi ñu gën a gëm ci la bokk parce que yéen seen jàmm mooy suñu bos parce que sunu bakkan yéen lañ koy jox saa bu ñu xëyee kon seen jàmm mooy sunu bës te tey ji amul sénégalais boo xamante ni am loruwut wala mu am ku loru ci tali bi te responsabilité bi responsabilité bu yaatu la ci sur le plan administratif mooy ni ñuy leen di joxe seen seen titres yi muy permis muy muy muy ni ñuy jàppandale seen visite technique muy ni ñuy jàppandele loolu yëpp ba nga xamante ni tey jii mitit bi ci am pour jot ko ak rendez yu sori yi pour jot ci loolu yëpp jàpp nañ ne lu mën a saafarawul la ndax gis nañ ñu ko saafara te ñooñu du ñu ay malaayka du ñu ay jinne ay doomu aadama lañ léegi lan moo tax ñun mënuñu ko saafara léegi lii ñuul ci soow mi nag loolu la ñuy dindi su ko defee mbir yi dinañ ko mën a dinañ ko mën a saafara leneen li nga xamante ni jàpp naa ne am na solo trop mooy la qualité des routes mooy tali yi ak yaatuwaay bi ak euh, euh, moo ngi may wax ne ma bu tawee sax fii inondé yéen yéenay dindi ndox mi waaw xam nga nag kon liñ leen kon liñ leen laaj bari na te loolu du seen responsabilité du seen rôle waaw waaye nag euh, damay faral di wax ne sapeur pompier bi ba fayut lakk gi nekk këram ñu xëy yabal ko ci geneen lakk ngir mu fay ko pour mu fay ko day jafe donc bala nga ne naam nekk fa ñun nag dañoo bëgg a di jàppale leen jàppale suñu bopp ba ngeen nekk fi ndax liggéey bi ngeen def dafa am solo occuper une position très stratégique ci ni ma leen ko waxee mbir mi da ngay fa mu fa mu tàmbalee ba fa mu jëm taxawaay moo war a am foofu su boobaa nag yéen seen suñ defee loolu yëpp même problème bi di kon ne am ñu ne ah kon problème bi léegi nag dootul mbir mi kon yéen yéenay problème bi su boobaa tamit man bu bés bu ma xamee ne yéen yéenay problème bi su boobaa man problème bi laay attaqué waaye fii ñu toll xam naa ne problème bi dafa am benn chaîne boo xamante ni ñoom ñoo ci war a taxaw dimbali leen bés bu ñu leen dimbalee ba loolu mat te yéen li leen war defu leen ko su boobaa ki njëkk a jàkkaarloog yéen man lay doon parce que dëgg tamit la yàlla bëgg waaw. woot ñu bari waxtaan ci ak ñoom di leen ñaan tamit ne xam naa ne artisan Sénégal de façon globale bés bu ñu demee assemblée nationale yóbbaale fa artisan yi non seulement dinañ waxal seen bopp waaye ñun duñ leen bàyyi mukk maa ngi leen di gërëm di leen sant ci xaar bi. ak ni ngeen toogee di ñu waroon nekk seen kër ba taw bi fekk ñu fi waaye Sénégal jar na ko jar na lu ko ëpp dañoo am ay maam ci Sénégal yoo xamante ni dañoo am ay maam ci Sénégal yoo xamante ni am na ci ñoo xam Sénégal moo leen jaral ñu dagg seen bopp maa ba jaxu ba ñu bari xamuñu ne dañu dagg boppam am na ci ñoo xamante ni dañ leen tuxal exile leen am ñoo xam dañ leen a bundu xatal xeetu bundu xatal bu nekk waaye ñoom tey jii kenn kenn ku ci nekk ci ñun yaa ngi ngéejoo bokk ak ñoom ci direct kenn ku ci nekk ci ñun tey yaa ngi dem fa gën a sori ci de seen dëkk di leen ziyaare ji ndax dañoo fàtte woon seen bopp nekkal askan wi seen ndono nag ñun dañ koy sàmm moo tax ñu fas yéene nekkal askan wi lu ñu ci góobe gar ko ñoo ngi leen di gërëm baax leen sant. waaw ngeen may ko loxo bu baax am na solo waaw pour ñu gàttal rek ndax waxtu wi fi mu toll la ak situation wu dëkk bi asamaan si mi ngi taw yéen chauffeurs yi ci yéen laay jiitu maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp. parce que ku ci nekk da nga gaare otoom pour déglu kilifa kilifa gi it li mu andi dégg nañ li mu wax bu baax assemblée la jëm assemblée bu neexee yàlla suñu borom fa la jëm te assemblée bi nga xam ne fa la jëm ñun fa lañ bëgg li ñu metti ñu di ko fa dégg te ñu ngi ñaan moom mii nga xam ne fa la jëm ba ñëw déglu suñuy doléance ñi ñuy taxawal assemblée mu bokk ci incha allahu rabbi ba tax na ñu ñuy wax honorable moom mi yàlla na ci bokk ak ñi mu toftalool ñëpp te mu jig leen parce que tamit bu dul dara pap ku ñu bàyyi xel nga wax dëgg yàlla ba démb sa journée discours yi nga doon def mën naa la ko nettali léegi laa toog ak ay kilifa fii ñu ne ma da nga leen a neex trop parce que lan sa wax set na sell na kon nit bu melee noonu danga koy yokku ñaan ba tax na kenn ku ci nekk na nga bàyyi xel ni fii ñu nekk moomuñu ko waaw alandoo yi mënuñu egg foofu amuñu ku ñu ko xeexal ensemble pap suñu moroom la xale bu ndaw la comme ñun tey buñ ko diisee suñu soxla jàppale ko ba mu dem fee mën na toog mu diisal ñu suñuy soxla parce que dafa jot nag chauffeuru kalandoo toll foo xamante ni ne moo wër di boom wër di bombe chauffeuru kalandoo kese mooy tëdd këram

ñun ñii ñoo leen sécuriser ñoo leen sécuriser leen garanti li ñu jàngal ci doomu aadama fii métier ba jox leen ay permis ñuy dawal fii ci garage bi ëpp na téeméer nit ak nangam garage bi presque 300 nangam personnes ñi ngi fi sans compter ñi fi jógee yàlla leen yàlla yërëm ba tax na ci gàttal doléance yi bari na buñ ko bëggee topp duñ fi jóg encore une fois ñi ngi lay remercier ci déplacement bi wax dëgg yàlla nit ku baax nga nit nga koo xamante ni ne sa wax set na sell na li nga wax dégg nañ ko